non 2024 Inch'Allah, on va faire beaucoup de projets à sa. Euh, PBS dinañ def projets pendant 2024 parce que nous sax savons nañ non non non quand même. c'est vrai que nous nañ lii mais 2024 Inch'Allah, nous ñun sur scène PBS nous ko dinañ ko nekkal euh, di souhaiter euh, joyeux Noël meilleur ba 2024 il est né année bii ñuy dugg nag année bu année tension la donc ñun ñëpp nañ Sénégal nous euh, passé élection ici, ci donc Djam, rek la ñu ñaan Sénégal c'est le plus important. Voilà, merci

mais buñ dama demee ba nit ci diñu wo diñu dénk ay organisation kuñ ko dénk si ñun rek dafa melni yow lañ ko dénk donc dañ ci kontaan di si sant yàlla et puis ça se passe bien alhamdulilah. mais lan mo tax ñu gëjë gis dégg ci. waaw nekkon si sama yeneen affaire personnelle rek xam nga ak yoy mais nañu instant bi ni nañ ñaan yalla ñu dugg ci élection ci jamm génn si jàmm Sénégal nekk si jàmm ñu fal ki ñuy fal après ñu ñu reprend suñu activité instant yi lepp lañu. ak yaakaaroo ni ak élection yi di ñëw yéen war ngeen ci jouer benn rôle boo xam ne pour gën a apaiser population bi comme yéen jeunesse bi yéen la ñu ëpp. non loolu loolu loolu duñ si duñ si jógee loolu duñ si jógee lépp luñ mën a def rek pour que lépp jaar si yoon si jàmm ak salaam xam nga dinañ ko def incha allah léegi bu loolu weesoon nag album bi pare na bu bu élection yi passé dina génn